daa leen wax di daa yàgg naa leen ko wax taw tawfeex rek may xaas la am ñoom ñu ngi nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñeent te ngeen dund ci fàggu waaye rek dañ fa bale xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. kon mu tàmbaliwaat geneen xasida goo xam ne amin yaa rabbal alamin la ko mu ngi tàmbalee aatiika aatini bila tawaani yaa maahiyal qurbati wal xawaani aatiika dikkal naa la yow yàlla aatini dikkal nga ma bila tawaani ci lurut yéex yaa maahiyal qurbati yow mi far ci man bi wal xawaani ak doxodi mu ne yàlla dikkal naa la yow dikkal nga xam nga dikkal yàlla ci sëriñ moy mooy tukki bi fam dem yàlla rek moom la fa doon dikkal yàlla rek la fa fekk waaye yàlla mujj na dikkal ko de mooy dimbale na ko moo tax mu ne ko nag dikkal naa la yow dikkal nga ma dikkal goo xam ne amul yéex ca sansa yàlla wallu na ma ba ma ko dikkalee rek ci la ma wallu aatini bilaa tawaan bilaa tawaan gi da nga koy delloo ci aatini gi kon yàlla bi may wallu sëriñ bi yéexut ca sansa la ko wallu bi sëriñ bi jëlee léppam jébal ko yàlla moo tax mu ne yow mi far sama tumuranke bi tabaarakallaahu ak doxodi alxawaan li muy firi mooy as sull nit ku torox ku suufe ku xeebu koo xam ne daal ku lompañ la ku doxodi buñ ne xaanal waludu mooy daxon fa sakana wala ñi ne xaanal rëjulu mooy salla xaqura ku torox daal ku suufe ku xeebu kon lim na ma wax fii rek ci maxnaa bi moo di bim dikkalee yàlla yàlla du ko dikkal ca saasa génn ko ci tukki bi génn ko ci lépp luy doxadi toroxal gañ ko bëggoon a toroxal lépp yàlla génn ko ci moo tax mu ne ko aatika dikkal naa la aati nii yow dikkal nga ma bilaa tawaali ci lurut yéex ci lurut yéex yaa maahiyal xurbati yow mi far ci man tumuranke bi wal xawaani ak doxodi allahu yàlla mawjoodun ko am la kenn amulul ko xadiimun tey aji jiitu te amul fu mu tàmbalee baaqin tey aji sax te du faatu muxaalifun tey aji wuutanteeg lil xalqi ay mbindeefam soo baax tey borom déelee juróom-ñaari mu ne yàlla allahu la mais mawjud la mawjud mooy koo xam ne am na mais moom kenn amalut ko xadim mooy ku jiitu mais amul fu mu tàmbalee baqin mooy kuy wéy di sax faw te du faatu muxaalifin mooy ko xam ne lim sàkk lu muy bari bëri niru nirawut cee kenn tolluwut cee kenn sooti baax nag mooy borom asmaani juróom-ñaar kon nag daan allahu yàlla mawjudun ku am la te kenn amalut ko xadimun aji jiitu la aji jiitu la te amul fu mu tàmbalee baqin tey aji sax te du faatu mu xaalifun tey aji wuutanteeg lil xalq ñeel mbindeef yi soo tibaax tey boroom déele déele asamaan yi asamaan yi ni ñu moom la ñuy wax tibaax asamaan su ne dafa jàkkaarloo morom waaye benn bu ci nekk doxam mi téeméeri at la. mustaxniyan moom yàlla moom aji doylu la bi nafsi ci boppam xan xëyri walis ku dul moom. waxaat xamaan yi te mbir moom xaar na ma an dawaaxi xaf si walis lépp luy sabab ak tëj. mu ne yàlla moom dafa doylu ci boppam. mustaxnin an xëri bi nafsi mooy turam bu ñuy wax alqiyaamu bi nafsi alqiyaam bi nafsi mooy koo xam ne dafa mën a taxawee boppam xam nga nit ku ne waxtu ne bi nga doonee gune dañ lay taxawu même sax loo doon doon mag bëri kattan kattan léeg-léeg am lu la jot loo xam ne faaw rek dañ lay taxawu bu ñu la taxawu rek du sotti doomu aadama yàlla da ko bind mu bàyyi ko ci doxadi di dellu ci doxadi booy xool ñëwum ëdduna rek moo njëkk a nekk ak doxadi faatoom nag rawatina ko gis nga ko. ñëw gi ñëw gi dafa doodi faatu gi itam dafa doodi naka noonu dundam itam dund gu doxadi la moo tax moom doxadi ci la ko yàlla bind xuliqal insaanu da'ifan yàlla wax na ko sax moo tax nag yàlla nag moom alxiyaam bi nafsi la moom dafa mën a taxaw boppam ndax kenn du ko taxaw mu ne yàlla mu xaar na ma ci lépp luy sabab ak tëj al afsi bu mujj bee nag si bee mooy bakkan bakkan la ci jubl loo xam ne dafay tëj bakkanu nit ba du am rosoo mooy du mën a jaamu yàlla mukk du yàlla yi moo tax mu ne moom yàlla mustaxniyan mustaxniyan aji doylu la bi nafsi ci boppam an xayri walis ku dul moom di max naa yàlla kenn du ko taxaw mën naa taxaw boppam <laughs> ku dul yàlla dañ lay taxaw waxaat xamaa ni te mbir mbir moom xaar na xaar na moom yàlla an dawaaxee walis lépp luy sabab xaf si ak tëj mooy loo xam ne daal dafay tëj nit ki ba nga xamee ne buntu yam daan jaar di jaamu yàlla yépp dafay mel ni buntu yooyu dañoo sakk nga xamee ne li muy bëgg rek waxtu ne mooy caaxaan ak fo foo ko fekk rek mi ngi ci caaxaan mi ak fo afsa mooy koo xamee ne buñ ne afasoo samanan mooy xabasoo ni koo xam ne ko tëj ah, jamono léeg-léeg dafay tëj nit ki ba mu nekk ci jaaxle nekk ci jafe-jafe nit ki bëggoon na toppoon na rek jamono ci bopp moo ko tëj. yeskuru dana sant man ka nga xamee de tawaxadaa yi ci jëmm ja wa was fii ak melom wa wa fiix lii ak jëfam ja mul taxadaa mbir moom mu nekk ku mu ne danaa sant suñu borom bi nga xam ne dafa wéet ci jëmm wéet ci melo wéet ci ba nëppi nekk ku ñuy wéedu kon jëmmi yàlla niroowut ak benn jëmm ba tey melo yàlla niroowut ak wenn melo jëfi yàlla niroowut ak benn jëf kon gis nga ko loolu mooy tur yi mu fiin rek mooy allahu ak mawjudu wala allahu bokkut ci mawjudu ngay wax ak xadim ak baqi ak al muxaalifu ak al qiyaam bi nafsi ak al waxdaaniya juróom benn tur yi ñëw an nafsiya ak salbiya rek moom la fi indi kon tur yëpp da ngaa war a gëm daal ci yàlla rek la yeyoo waaye ku dul yàlla eh, yeyoo ko. nax wi sama naxu o mantiq ak mantiq bi wal bayaanu ak bayan bi. wa innahu naka moom yàlla asakooru mooy santaakoon bi wa dayaanu tey fayaakoon bi. mu ne sama naxu dama ciy sant yàlla sama mantiq dama ciy sant yàlla sama bayaan ma di ci sant yàlla ndax yàlla kat santaakoon la. yàlla santaako la ay jaamam ñi nga xam ne dañ koy sant ñi nga xam ne dañ koy toppatoo duñ ko mooy daf leen di sant di leen gërëm di leen fay sant gu tukkee ci yàlla ñëw ci jaam bi mooy fay yim koy fay rek ngir topp jaam di topp boromam di ko sant ci xéwal yim ko defal yàlla moom da yàlla mooy koo xam ne na fayaakun la lu ko waaye defal mu fay la ko nu mu nekkee santaakoon noonu la nekkee dayaanoo li ko jaam bi nag di sant di ko jaamu ci waxtu ne moo tax nag mu di ko fay lam koy sant moo tax mu ne nag nax wi sama nax wa mantiqi ak sama mantiq wal bayaan ak bayaan bi yëpp dana ko sant moom yàlla ndax indi innahu naka moom asakuru mooy santaakoon bi wa dayaanu tey fayaakoon bi yaskuru dana ko sant arudu xam-xamu arud yëpp nettali woon nañ ban xeeti xam-xam la wal maxaani ak xam-xamu maxaani bil maxnawiyati ak turi ñuy wax al maxnawiyati bil maxaani ak turi ñuy wax al maxaani mu ne sun borom sama xam-xamu arud da koy sant ak sama maxaani da koy sant sama maxnawiyati da koy sant dégg sama maxaani da koy sant ak sama maxnawiyati ak maxaani yëpp da koy sant ci waxtu ne foo ma fekk rek sama xam-xam yi yi ma yor yëpp dama koy sant yàlla jumtuwaay yëpp bu nekkee ci ma dama koy sant yàlla. bim ne maxaani bu njëkk bi nga xam ne dafa xaaroo teg ci maxaani mi ngi ci namu dégg nga euh, xam-xamu maxaani bokkut ak nag bi ngeen xam bu dee maxaani bu mujj bee mu dane bëy bi nag kooku moom xam nañ ko. mooy yeneen tur yàlla yi wax yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo génnee ci almaxnawiyat rek qudratu irada almu xayaatu sama basarul kalaama dégg nga maani nag moom euh, moo yem ci mutakalim mooy qaadirun muridun aalimun xayun samihun basirun mutakalim moom la ñuy wax maani kon ñaari maani yi yëpp xeeti xam-xam la mais maani bu njëkk bi moom xam-xamu maani la ci na moom bu dee maani bu mujj bee nag mooy xam-xam yi turu yàlla yi nga xam ne ñoom la ñu almaani te mu tàmbalee qaadirun yem mutakalim moo tax mu ne yàlla yeskuroo dana ko sant alxaruud alaruud xam-xamu aruud bi wal maxaani ak xam-xamu maxaani bi bil maxna wi te ànd ko li ñuy wax maxna wi muy tur yàlla yooyu nga xam ne moom la ñuy wax alqudratu ak iradatu ak xelmi alxayaatu asama ak basaru ak kalaam bil maxaani ak yi ñuy wax maxaani dégg nga wala bil maxna wi ti maxna wi ti waaw mooy qaadirun muridun xaalimun xayun samiun basir mutakallim maxaani nag ci boppam mooy qudratu ak iradatu ak xelmu ak xayaatu asama ak basaru ak kalaam dégg nga eh, ak kalaam dégg nga kon yaskuruhu dana ko sant alxaruudu xam-xamu xaruut bi wal maxaani ak xam-xamu maxaani bi bil maxnuyati ànd ko tur yooyu ñuy wax al maxnuyati wa bil maxaani ak tur yi ñuy wax al maxaani dana ko sant bi ha ci ci lii wa bil badiha ak ci xam-xam bu ñuy tuddee badiha wa innahu naka moom yàlla alxaqu muy dëgg al mubiin gëdi aji biir wal badiha tey aji fent lépp yalla sama xam-xam yi yëpp dama ko ciy sant waaye dooli naa ci beneen muy xam-xamu badian da waxoon na mantix ak bayaan ak arut ak maani mu teg ci badian yàlla nag dama koy sant ci sama xam-xam bii ñuy wax badian ndax yàlla mu may sant ci xam-xam yi kat mooy dëgg gu leer gi te itam mooy ki fent lépp te ko fenn rafaatil qudratu wal irada wal xelmi wal xayaatu man araada bi samhi wal basri wal kalaami kafaaniyal axdaakal malaabi léegi ñaari biir yi moom la ñuy wax nag ñaari biir yi muy indi moom la ñuy wax nag euh, almaxaani xam nga bi mu ne yaskuruhu alxaruudu wal maani bil maxni o bil maxaani gu mujj googu tur yi nag moom la ñuy wax muy qudratu iraada xelmu xayaatu samxo basaru kalaam moom la ñuy wax almaxaani moo tax bi mu ne wal maani rek dana bil maxniyati wa bil maxaani rafaxati yëkkati alqudratu kàttan la wal iraada ak namel ga wal xelmu ak xam-xam ga wal xayaatu ak dund ga man ka nga xamee ne araad araada namm na mu ne sunu borom waxtu ne day di yëkkatiku di gën di dol dégg du wàññeeku mais du dolleeku kàttanug yàlla moom duñ dem ba yàgg ñi ne tëli na waaye iraada la ba tey iraadaam dafa yëkkatiku mooy moom nameelam bokkut ak nameelu nit moom lépp lum namm du ca tàggu kenn te bu ko defee kenn kenn kenn du ko laaj lu tax nga def lii waaye moom day namm lu ko neex rek def moom du ca tàggu kenn te itam kenn du ñëw forcer ko ci dara na ko defal nangam doomu aadama bu nag loo mën a def rek manees na la koo laaj lu tax nga def ko nit rek dan la ko laaj boo ko defee bu ko jaaxale bu lu ko nit laajul lu mu yàgg-yàgg da ñëw ci yàlla yàlla laaj la ko mais xam-xam bi ba tey naka noonu rafaxati xam-xam bi dafa matee sëkk dafa wute xam-xamu nit moom nag dafa peeg lépp moo sàkk lépp ba ba noppi xam lépp wa anna laaha qad ahaata bi kulli shay'in ilman naka noonu dund gi amul fu mu tàmbalee te du jeex te ci biir dund gi ci boppam dund gi muy dund duñ dem ba yàgg ñu ne tànk yaa ngay métti mbala bopp ba mbaa feebar na xeet yi gaar nit yépp kooku nag suñu borom subhaanahu wa taala moom eh, dafa jomb ci moom moom loolu yépp nga xam ne dafay gaar ci biir dundam rek. kooku dafa nekk lu ñuy wax mustahil ci yàlla jomb moo tax mu ne rafaxati yëkkati na alqudratu kàttan la wala iraada ak namel ga wala xelmu ak xam-xam ga wala xayaatu ak dund ga kan la yëkkati mu ne man ka nga xamee ne araada mooy namm na kon mu delloo max naa bi moom sëriñ bi ci boppam moom mi nga xam ne dafa am iraada iraada nit na ak bu yàlla bokkunu waaye moom day bëgg day ñaan lu mel noonu yëpp da koy def yàlla moo tax nag mu ne nag yàlla mi nga xam ne mooy borom xudratu ak iraada ak xel ma yaatu moo ma yëkkati man mi nga xam ne dama am araada dama am sama bëgg-bëgg mooy li may xamem naka noonu bi samxee yàlla mooy ki yeyoo lu ñuy tuddee dégg wal basari ak gis te gis lépp wal kalaami ak wax kafaaniya fegal na ma al ahda annooni kal malaami ni lépp lu yeddaange mu ne lu ñuy tuddee dégg ba tey bokk na ci melokaanam ya yi nga xam ne ay turam lañ mooy yàlla dafay dégg mais lépp lay dégg doomu aadama mantu mëntu dégg lépp ñin la yàlla dafay gis lépp lay gis amut lu ko ump ñin la yàlla day wax bokk na ci melokaanam yi danay wax ak ay jaamam ay yonentoom alxuraan ji benn wax la ci wax yi nga xam ne wax na ko mu nekk sifatun min sifaati laay melo la wutukee ci yàlla ndax comme waxam la ci moom la bay ko kon loolu meloom la kon alquran wax yàlla la kon bokk na ci tur yàlla mooy kalam dafay wax yàlla moom na nga xam ne mooy samxoo nekk bësru ak kalaam fegal na ma samay noon yëpp ak lépp lu ñu war a yeddee nit rek yàlla fegal na ma ko ba duma ma jublu du ko jublu musul ma ci samay noon bi kaw nii ci nekk gim nekk alqaadira di aji am kattan wal murida tey aji namm ji saaqa ci la mànge li xayri dar yi mu jëm ci fudu di ma lor si almarida aji lu ji di iblis alxaali bi mooy aji xam ji alxayu tey aji dund ji te du faatu asamiixu tey aji dégg lépp wal basir tey aji gis ji gis na lépp wal basir tey aji gis lépp wal mutakallimu tey aji wax ji xabaani may na ma bi xusóor ay njënde ay taxi kaw ba tey ñaari bind yii daf cee tënk lu ñuy wax ba tey almaxnawiyaat yaa ngi bàyyi bàyyi xel bayde bi mu ne yaskurul arud wal maani bil maxnawiyate lu ñuy wax almaxnawiyat nag moo nekk nii mooy lu ñuy tuddee xaadiru ak muridu ak aalimu xayu samiho ak basir ak muttakalim moo tax mu ne nag yàlla nekk gi nekk xaadir di aji am kattan ji nga xam ne xaadir ma nga béy ci xudratu ak nekk gi nekk murid di aji namm ji mu ngi béy ko ci iraada nee na nekk gi nekk nekk ñaari tur yooyu mu sax ci moom yell ci moom nee na ci la dàqee muy jëm ci furut di ma lor si aji féttéelu ji di iblis ci la ma ci yàlla musale ci ñaari turam yooyee nekk gi nekk ba tey aalim nga xam ne mu ngi tukkee ci almu mooy ki xam lépp nekk gim nekk xayu mu ngi tukkee ci xayaatu nekk gim nekk samion mu ngi tukkee ci same nekk gim nekk basir mu ngi mu ngi tukkee ci basar nekk gim nekk mu tëkkali mu ngi tukkee ci kalaam nee na ci la ma maye nag ay xusóor ay xusóor bu boo déggee mooy ay taaxi kaw ay njëndi maanaam ay dëkk yoo xam ne ay taaxi kaw dafa am ay taax kon nee na nag al alimu yàlla mi aji xam ji eh, dafa yell ci moom alxayu tey aji dund ji te du faatu asamion tey aji dund ji wala alxayu tey aji dund ji asamiho tey aji dégg lépp wal basir tey aji gis lépp wal mutakallim tey aji wax ji xabaani ci la maye bi xosóor ay njënd ay taaxi kaw nekk gim nekk daal làmboo tur yi muy alim xayu samion basir mutakallim muy juróomi tur yi ci la maye ay taaxi kaw waaye nekk gim nekk làmboo ba tey xaadir ak murit ci la ma dàqalee iblis ma nga xam ne aji féeteeru la mooy saaxali xëy darril marida laxoo ñeel na ko xitaab yi samag waxante ak moom wa ataaba tee lal na at maxa suhóor yi ànd koog weer ya ah si man mbir moom muy aji ma minal anin ci lépp luy binni mu ne ah yàlla rek lay waxanteeg de te sama xat yëpp yàlla teyal na ko sama weer yëpp yàlla teyal na ko nit bu ne sama weer yi tee na sama at yi na mooy bi ma juddoo ba keroog muy wuji sama borom lépp sama borom teeyal na sama at yëpp sama weer yëpp mooy yàlla nangu na leen lépp waaye musal na ma ci lépp luy binni binni mooy naqar métit loo koo xam ne métit da ko dal métit xol moo tax lépp luy métti rek ba tax nit ki do onk yàlla musal na ma ci moo tax ne asiman aji musal mi nal anin ci lépp luy binni alamta xamal nga axda ak sa noon bi ne anniya man habib ab soppi laa lakka ci yow xalilu nekk ab xarit ba tey lakka ci yow saaxinan di borom doylu ci yow ani tabib walis daptoor yàlla yaa xamal sa noon bi bam xam ko nga ne ko man soppeeb yàlla laa xaritub yàlla laa xam nga sunu borom bu xamale loolu noon bi noon bi kat dootul ñemeeti Serigne Touba kon yàlla moo wax noonu Serigne Touba bi na ko waaw yow yow mii di noonu Serigne Touba kanaa xamoon ne kii sama xarit la sama soppi la <laughs> kenn mosu dégg saari wax yooyu rek yàlla xamal sama dégg nga noonam bi noonu yàlla mooy noonu Serigne bi rek moo tax mu ne ko àllam ta xamal nga yow yàlla ah daa ak sa bi te lam ci nam rek mooy noonam moom Serigne yàlla xamal na noon bi ne ko anni yaman habib ab soppe laa laka ci yow xalilun ab xari laa laka ci yow saaxinan di borom doylu ci yow ani tabib walis daftoor yàlla waxoon noon bi ne ko kanaa xamoon ne kii du dem daftoor kanaa xamoon ne sama xari la kanaa xamoon ne kii sama soppe la ah noon bi de bu amee xel dana wan gannaaw sëñ Tuubaa nag ndeysaan aw salta nga illee ci man ujóora laay sa yool yow yàlla sa yool yow yàlla maa jasa in ànd ko fay min rasulillahi gu tukkee ci ndawal yàlla li jox na ma ay yoolam lépp luy xeetu ujóor ca yàlla rek yàlla egg eggale na ko ci man jox na ma ko waaye nag jox na ma ak fay goo xam ne dafa tukkee ci ndawal yàlla li bii moom yàlla la dafa dox diggante sëriñ bi ak boromam yàlla jox ko bee nag yàlla moo ko jëlee ca rasulullah ñëw jox ko sëriñ bi moo tax mu ne ko awsalta eggale nga ilee ci man eh, ujóoru laay soo yool yow yàlla maa jesaay ànd koog fay min rasulullah gu tukkee ko ci ndawal yàlla li yonente yi moom it ñëw na kat moom it tabaarakallahu eh, fay sëriñ bi yàlla na nu yàlla doolee fayal sëriñ bi kon moom fay yëpp da ko làmba fay ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam laka ñeel na la yow kottu kottu la daa xeddaaka fasa noon bi tawxiid yi sama tawxiid mahamatu ànd kook tagg àll ka nga xamee ne jamaha dajelal daje daje na ci moom lal masaaya bépp may mu ne nag sama wéetal yàlla ba ma nekkee ca noon ba yàlla rek laa doon wéetal amul kenn ku ma mos a ci ñoom yàlla rek laa doon sant yàlla laa doon wéetal yàlla laa doon bàkk mais kenn ci ñoom wéetaluma ko. lii yëpp dafay seedaloo yàlla di wane ne bi ngeen ma gëj a gis yéen waa Sénégal yéen samay taalibe la yàlla rek laa doon wéetal bu leen defee ne mukk ba ma nekkee ci géej gi wéetal naa tubaab yi. fu ma toll su ma wéetalee yàlla ba noppi tagg yonent bi nga xam ne mboolem may yëpp ngëneel yëpp dafa dajee ci moom. moo tax mu ne ko lakkal ñeel na la la daa xedaaka fa sa noon bi loolu mi ngi ci jublu géej gi rek ñeel na la tawxiid yi sama tawxiid dégg nga taw tawhid sama tawhid maxan doo ko firee mboolem seen de déedéet naan la ka na la la daan daaka fasa noon bi taw tawhid sama tawhid maxa maxa maxa alif goog alifu itlaax la da ngay jàng mahamatu dégg nga mahamatu mahamatu mooy ànd ko gi tagg àll ci ka nga xam ne jàmmaha dajale na mooy dajee na ci moom kulal masaaya bépp may. kon ba ma nekkee ci géej gi ci noonu yàlla yi nee ne sama tawhid lépp ci yàlla rek laa ko jëmale jëmale ko ci benn tubaab. waaye ànd koog di tagg yonent bi nga xam ne mboolem may yàlla yëpp mi ngi dajee ci moom sallallahu alayhi wa sallam. loolu la waxoon ci xasida minul baqal xadim moom sëñ Tuubaa euh, ci xasida googu di wadoodu kasbiya gis nga kasbiya kasbi kasbiya tawhidun wa mathun li nabi alayhi taslima xafooril musnibi nee na sama faggu teef mooy foo ma fekk rek may may wéetal suñu borom tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafantu am fu ne rafantu tawxiidi li rabbil alamin waquttu am daahi li ahmad al amin waxee na ko nu ne dégg nga malakta nii moom loo nga ma min ko tukkee ci yow jasaa an fay goo xamee ne an saa fàttiloo na ma asaay sama lor yaa man yow yàlla mi nga xam ne laa an saa du ma fàtte mukk sukkuruhoo di la sant mu ne yàlla jox na ma ci moom fay goo xamee ne fay ga bi mu yegsee ci man mboolem lor yi nekkoon ci man lu ñuy métti métti fay ak yàlla gi moo tax ma fàtti ko yàlla moom su la fayee rek lu mu la teg lu muy métti métti su la fayee nga fàttali lépp mel ni mosul laa dal yàlla moo mel noonu. moo tax ma yàlla jox na moom loonu ma ci moom fay goo xamee ne moo tax ma fàtte sama lor yëpp yàlla mi nga xam ne nag du ma fàtte mu ko jëlee sant <laughs> Sëñ Tuubaa goro diwut de Sëñ Tuubaa ko am goro la waaw. yaa man sukuruhu laa ansa yàllaahu yow yàlla woo naa la yaa raxmaanu yow muy xéewalaa kon ñëpp cëdu na. yaa mu tey aji yërëm ku la soob yaa maliku tey buur boo xamee ne doo fooleeku mukk yaa xudoosu tey sellaa ko bi te taqoo dara dangaa set wicc iskur santal uskur santal lii ñeel ma nas mi yaa sama woyu yi mu ne yow sunu borom woo naa la yow muy xéewlaa kon ñëpp ci àddina tey aji yërëm kulo la soob ci àlaxira yow yaay buur bu dul fooleeku mukk ku dul yow dana fooleeku yow yaay buur boo xamee ne taqoo dara ku dul yow nag lu muy nekk nekk buur dafa gën a tilim buureet na yëpp tilim moo tax toujours yàlla bu tuddee bu ko tuddee maliku kuddus la ci teg tur yàlla lu tax maliku bi mu ñëwee xudus topp ca parce que loolu moo ko waral bu dee yàlla lu muy nekk nekk buur dafa set buur yi ëtt nag lu ñuy nekk nekk buur koo ci gis rek moo gën a tilim morom ka moo tax mu ne ko yaay buur bu du foleeku yaay ko sell koo xam ne tëqoo dara te dara du la tëq mu ne ko nag na nga sant sama wuyu mooy nangu ko rek gërëm ko. wuyu nag mooy xasida gi rek mu tënkee amin yaa rabbal alamin bu ñuy firi nii nafayta dàq nga an yemu sërima sawil xodduwaani borom nooneel ña bi xëyri radin ci lu ñuy delluwaat lii di ñëw ci man wala xawaani du caagin ak doxadal mu ne yàlla dàqal na ma ñi ma noonee woon ñëpp génn ma yóbbu ma ci tukki ba yàlla musal na ma ci ñoom dàqal ma leen te dootuñ dellu si waat ci man mukk waxuma la sax ñi may doxalal di ma toroxal di ma di ma jéem a yëfi xeebel yu mel noonu ku ne xam ne sëñ bi ko yóbbu ci géej gi dañ koo xeeboon fitna yëpp dañ koo bëggoon a toroxal dañ ko bëggoon a fàtt loolu yëpp sottiwut seen pexe bu juboon ah sëñ bi dootu dellu si dootu dellu si mukk moo tax mu ne na fay te nga andi mu sëri ma say loxo duwaani borom nooneel ña bi xëyri radin ci lurut ak dellu si lii di ñëw ci man wala xawaani du caagin ak doxadal dégg nga dootu ñëw di ma doxadal te dootuma di ba faw te noon yi bi nga leen dàqee te dootuñ jubluwaat ci man dégg di ma nooneel yàlla dàq na noon yëpp kenn dootu ñëw ci man di ma nooneel yàlla musal na ma ci ñoom kon xasida googu foofu la yem ba tey mu indiwaat geneen xasida goo xam ne amin yaa rabbi la ko tënkee waaye dana xam ne dana ci tudd ba tey li lim baaxoo di ñuy nettali ci xasida yi muy lum jaayanteeg yàlla lu mel ni fanweer ak ñett ak njëgg ko ci yàlla jox dana ko ci nettali incha allah ak li ko yàlla defal dana ko nettali ba tey ci tarjumaan ji lenn ci liko ko yàlla defal dégg nga euh, nekk gi nekk lu mel ne rek liggéeykatub yonent bi mbaa mu nekk xaritam mba mu nekk soppeem dana ko dëggal wax ko ci tarjumaan ji bala moo dugg ci xasida gi bismillah ma sama wax ci tudd turu bi arrahmaani buur ba di xéewal kon ñëpp ci àdduna arrahiimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira wasalla yàlla julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadim turam di muhammad wa ala ak ñoña wa sama bi ak sahabaam yëpp wasallamu tamu dolli koolu tasliman dolli góolu mu ne maa ngi tàmbali xasidi gi ci turu yàlla yàlla muy xéewal kon ñëpp ci àdduna yàlla muy aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira yàlla julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di muhammad yàlla yàlla julli ci waa kër yonent bi ak saxaabaam yëpp te dolli ko sëlmal ak kullite kataba bind na allahu yàlla ñu lu mu bind mu ne tabaaraka xaaram la bàkku ba noppi tabaaraka yàlla mi xam ne ku barkeel la wa taala te kawe ne annahu naka moom subhaanahu tudd na mag sellam subhaanahu sërilal naa ko lépp lu yellut ci moom ne moom moom yàlla ci boppam dafa bind ba noppi ne waxaaba may na li kaati bi ñeel aji bind xaasil xuruf yi xaraf maa aqasahu la jël na ko bi mastaraaw ca la jand na ko minu tukkee ci moom bi qadri saati ci kàttanu màggaay jëmmam ja bilaa salbi ci lur mu koy rinki mukk abadan faw wa innahu naka yàlla dafa wa innahu naka moom yàlla dafa xaj joñ na ilaa xayri saati mu jëm ci fu fudul jëmmi asalaasati ñett wa salaasina ak fanweer ya min saaxati xët yi ci tàmbale ko ci waxtu suma bind xaasal xat mi mbind si mooy mbind mi nga xamee ne nuqi la maa ngi ko jëlee maa ngi ko toxalee min la ñu bàyyi ko ci gëdd buñ wëttu wallaahu yàlla wakiilun aji seede la alaamaa naqulu ci lii ñu wax. mu ne subhaana ko tudd na ma sell ak buur bi rabbil izzati yàlla muy borom tedd ga xamaa yi ci fan walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak yu ko niru wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ca mboole ñi ñu yónni ña walhamdu melu sax dàkk te rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla mi nga xam ne mooy borom bindéef yi mu ne maa ngi tàmbali ci tur yàlla yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci doote aji yërëm ku ko soob ci àlaxira maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang turam di Muhammad yàlla na yàlla julli ci waa këram ak saabaam yëpp te dolli ko kóllite ak musal sëriñ bi ne yàlla mi nga xam ne ku barkeel la te kawe maa ngi koy bàkk sax bala maa wax lu ma defal maa ngi koy sëril lépp lu yellu ca moom loo xam ne mustahil la rek maa ngi ko koy sëril di ko dàqal di tudd ak sellam moom kat moom moom nga xam ne ku barkeel ta te bind na ne man mi taalif xaraf yi muy xasida gi dégg nga moom yàlla ci boppam may na ma euh, la ma ko jaay te mooy fanweer ak ñett njëgg ci boppam jox na ko ba ma jël ko mu tukkee ci moom ñëw ci man ba ma koy jox dafa xool ci kàttanu màggaayu jëmam ja te bi ma joxe njëgg ba noppi dootu ko rinkeeti ci man mukk yàlla daal dafa bind ci lawul moom fos ne moom yàlla daf ma may man mi bindi xaraf yi li ma jëlee ci moom te mu jënd ko mooy masanal mooy masalan sëriñ bi marchandise mam jaay yàlla xam nga ne loolu jaay lay tudd mais yàlla da koy jënd yàlla su ko jëndee ba noppi dana am lu ci jox. moo tax ne bi ko yalla di jënd nag di ko jox loolee muy tukkee ci moom ñëw ci moom sëriñ bi bind xaraf yii dafa xool ci kàttanu màggaayu jëmmam ja te ni sëriñ bi nee na la ma yàlla jox dootu ko rinki dootu ko jëlaat. ba tey yàlla ci boppam dafa bind ci laxul manfos ne joñ na mu jëm ci furut dégg nga sama jëmm maanaam sama jëmm fanweer ak ñett yii nga xam ne jaay naa ko ba noppi yàlla joñ na ko dootuma jublu fanweer rek fanweer ñett yi nga xam ne dama ko ko jaay dootuma jublu mukk yàlla dàq na ko mu mu jëm ci furu sama jëmm loolu nag maa ngi leen koy xamal min saaxati xatti xaasal xat li ko tàmbalee heure bii nga xam ne moom lay bind mi bind ci la amee ci la ma ko yàlla defalee te mbind mii kat amul sikk ne maa ngi ko toxalee ca lahul mahfuz te lii may wax su ngeen ko wéddee yàlla seet na ko <laughs> su ngeen ko wéddee yàlla seet na ko kon kat bind na allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne ku barke la wa te kawe annahu naka moom yàlla subhaanahu sulul naa lépp lu yellu ci moom annahu naka moom lim bind mooy waxaaba may na li kaati bi ñeel aji bind xaasil xuruuf yi xarafta mooy man Sëriñ Tuubaa maa aqasoo la jëlee naa ko bi mas taraaw ca la jënd na ko. ca la jënd na ko xam nga la yàlla jënd mooy marchandise ma nga xam ne sëriñ ba jaay na ko waaye itam sëriñ bi lan la jël mooy njëg ko yàlla jox moo tax ma ne maa la nga xam ne aqasoo naa ko bi mas taraaw ca la jënd na ko sëriñ bi jox na ko marchandise kay yàlla jox ko njëg kon moom ci boppam yàlla mo bind ci loolu moom foos ne man mi bindi xaraf yi jot ci njëg rek dégg nga miinu tukkee ci moom njëg nga xamee ne dafa tukkee ci yàlla moo ko jaayee marchandise ma jël naa ko ba nëpp miinu mu bàyyi ko ci moom bi xadri asamati saati ci kàttanu màggaayu jëmmam ja bilaa salibin ca doodu te doodu rinkeeti njëg abadan faw waaye ba tey bind na contraire ba mooy xàcc dootul amati waaye inoo naka moom yàlla ba tey dafa joñ na ilaa xëyri saati mu jëm ci furut jëmmi ki bindi xaraf yi lan la joñ mu ne asalaasata ñett yi wa salaasina ak fanweer mooy la ko bi jaay dafa toll ci lu ñuy tuddee la sëñ bi loolu kañ la xaw min saati lu ko tàmbalee ci heure bi nga xamee ne xët yi mooy sama mbind xaasal xat mi mbind ñu ko mbind foo ko jëlee yaa ko bind yaa ko karee wala mu ne àll si mooy mbind mi nga xam ne no la maa ngi ko toxalee mina law yi caax la waja al mahfuz gër guñ wattu walaaw yàlla wakilu aji seede la alama ndaqul ci li ñuy fa kubar kon ñaar rek la mooy max naay moom rek moom rek lay nettali sëñ bee jaay yàlla fanweer ak ñett yàlla jox ko njëg jeex na sëñ bi nag nee na lu am la njëgg yàlla jox na ma ko te dootu ko jëlaat <laughs> man it ko jox dootu ko jëmalewaat mukk ci sama jëmm nee na loolu nag heure bii may mbindi minimi laa leen koy wax ta mbindi maa ngi ko tàmbali maa ko jëlee ci laxul man foos te yàlla seet na ma wax yàlla jox na ma njëgg jox naa ko ma kenn dootu ci xàccate kon subhaan rabbika rabbil ansati amay son wa salaamun ala muslim alhamdulillahi rabbil alamin subhaan rabbika tudd na ma seel ak na ma seel ak sama borom rabbil ansati moom muy borom tedde amaa yi si foon walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak yu ko daal alal mursalin yàlla nekk ci yonente yëpp walhamdu melo sax dàkk te rafet lii laay aji sax ñeel yàlla rabbil alamin muy borom bi defi ba tey saxaxa wéral allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xamee ne ku barkel la wa taala te kawe wa xaqaqat dëggal na li kaati ñeel aji bind xaasil huruf yi xaraf ni annahu naka moom qadimun ab liggéeyaakoon la li rasulillahi ñeel ndawal yàlla la di yonent bi sala yàlla julli allahu yàlla taala yàlla muy aji kawe ali ci yonent bi wasalama te salmal ci moom wa qalilun nekk ab xarit lahoo ca moom wa habibun nekk ab soppi lahoo ca moom ali yàlla nekk ci yonent bi asalaatu julli gu tukkee ci yàlla wasalaamu ak salmal bila salbin ci lur ak rinki abadan faw wa xaraqa xottil na lahoo ñeel ki bindi xaraf yi moom yàlla alxaadata xaada bi haasil ci yi bayit wamal la ko moom loo na ko bihaa ci bayit yi asuwara saari alqur'ani wal ayaati ak ay alqur'ani minal xurufi mu tukkee ci xaraf yi nga xam ne moom laa tënkee amin yaa rabbi amin moo yàlla nga nangu ñaan yaa rabbi borom bi ne yàlla ci boppam moo wéral lii bind yàlla wéral na ko ba noppi yàlla mi nga xam ne ku barkeel te kawe ba tey man mi bind xaraf yi yàlla dëggal na wéral na na ko ba noppi ne man liggéeyaakoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xarit laa ci yonent bi mais soppe laa ci yonent bi maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent ci moom dégg nga ni ma nekkee dégg nga liggéeykatu bi yonent bi noonu laa nekkee soppem noonu laa nekkee xarit loolu yàlla def na ko ba noppi te ko rinki dootu ko dootu ko jëlaat mukk dégg nga dootul ma ko tekkil bu doon lu ñuy takk takk naa ko ba noppi kenn dootu ko tekkee yàlla dootu ko rinkeeti mukk loolu moo tax na bilaa salabin abadan waaw yàlla daal def na mi bind araf ma nekk liggéeykatam yonent bi nekk xaritam nekk ab soppem maa ngi dagaan ci yàlla nag mu julli ci yonent bi sëlmal ci moom te bu mu ko rinkati mukk yàlla nag man mi taalif xasida gi bind xaraf yi may na ma ci ay defal na ma ci xotteeku xaada xotteeku xaada boo ko déggee mooy luñ baaxoo xamee ni yàlla may la nga man koo jéggi yàlla may ko ci daal lu ñuy tuddee xar baax dégg nga bayit yi yàlla defal na ko ci xar baax waaye yàlla moom loo na ko ci bayit yi mu taalif jox na ko ci saari yi jox na ci ay alquran yi te mooy xasida mu tënkee amin yaar bi ci la ko yàlla mayee saari alquran yi ko yàlla maye ay alquran yi ci la ci la ko yàlla defalee xar baax ci yi bayit moom Serigne Touba. qaada lahu llahu maxtaara la tax mu ne saxaaxa wéral na ko ba noppi allahu yàlla tabaaraka moom la ñu xam ne ku barkeel wa taala te kawe wa xaqaqa te dëggalal na. li kaati bi ñeel aji bind xaa lu rëf yi xaraf te mooy man borom Touba ne annahu na ko moom ci bind xaraf yi xadimun ab liggéey laakoon la ab liggéey yaakoon la li rasulillahi ñeel ndawal yàlla sala yàlla julli allahu yàlla taala yàlla muy aji kaw yàlla julli ali ci yonente bi wasalaama te salmal ci moom wa qalilun te ab xarit la lahoo ca ca yonente bi wa habibun ab soppi la lahoo ci yonente bi dégg nga ba yàlla nekk ci yonente bi asalaatu julli gu tukkee ci yàlla ak salmal nee na yàlla ni mu ma nekk xarit ci yonente bi soppeek dégg nekk ko koy liggéeyal faw te du ma wàcc bilaa salibin dootu ko dootu ko rinki bu lu ñuy takk dootu bu ko tekki abadan faw waxaraxa xottil na loxo ñeel ko alxaadata xaada bihaasil abiyaata ci bayit wa man la ko moom loo ko mooy jox na ko bihaa ci bayit yi asóora saari alquraan yi wal ayaati ak aya alquraan yi minal xuruuf yi mi ngi bàyyi ko nag ci xaraf yi nga xam ne moom laa tënkee amin yaa rabba dégg nga nga xam ne xasida gi ñuy si moom la wax ne ci la ko yàlla may li mooy mu nekk liggéeykatub yonent bi faaw te du wàcc nekk xarit ci yonent bi nekk sop ci yonent bi defal ko ci xar baax jox ko ci saar alquran yi ko ci ay alquran yi nee na ci xasida gi ñuy bëgg firi ci la ko yàlla defale kon xasida gi mi ngi tàmbalee gim tënkee amin yaa mooy aatiniyal ahsama fil xibaada wa aadati yaa mukriman xibaada aatiniya mooy dikkal nga ma mooy jox nga ma rek al ansama la gën a màgg fil xibaada ci samay jaamu yàlla yi wa ak samay xaada yaa mukriman yow aji teral li nga xam ne mooy say jaam mu ne yàlla jox na ma la gën a màgg su may jaamu yàlla daal yàlla daf may dikkee la gën a màgg masalan su may def farata yi moo xam la wala wala takkusaan wala tusubaar wala gexe wala timis mbaa may lekk mbaa may naan wala wala may nelaw daal ci nuñ ko mën a waxee mu ne sunu borom dafay tàbbal li gën a màgg ci jaamu yàlla googu wala xaada gi maanaam ismulay ansam sirub ismulay ansam yàlla da koy tàbbal ci sama jaamu yàlla te loolu li muy tegtale mooy yàlla nangu na ay jaamom da koy tàbbal ci samay xaada dafay tegtale yàlla nangu na xaadam kon sëriñ bi waxuma rek jaamu yàlla yi ko yàlla digal ci nangu ko waaye xaada yi sax yi nga xam ne xaada la rek tabiali ci nit ki dañ ko ko bindaale kooku rek def gi mu koy def yàlla nangu na ko ba nëppi kon lekk mag naanam ak xaada mooy lu mel ni bind ak yu aaj yu yëpp kooku xaada yi nit ki rek la bokk nag nag jaamu yàlla mooy farata yi lu mel ni xeeti dem màkka lu mel ni génne asaka lu mel ni juli xeet yooyu yëpp mooy nekk li nga xam ne jaamu yàlla yoo xam ne yàlla da koo gàllu nit ki mu nekk lu mel ni julli nga xam ne fardu ayni la nekkul fardu kifaaya moo tax mu ne yàlla defal na ko la gën màgg ci jaamu yàlla ak xaadam moo tax mu ne aati jox nga ma al ansama la gën a màgg fil ibaada ci biir jaamu yàlla yi wa xaadati ak samay xaada yaa mukirman yow muy aji teral ibaaduhu ay jaamam xam nga yàlla moom jaam la teral wala xad karam naa bani aadama rek wa amal naahum moo koy tegtale yàlla doomu teral ci lépp lu Euh, mostu dëñ di war bu nekk ci bidiyaayam dafay war bu génnee kasaalika tàggatal ko oto yi tàggatal ko seret yi tàggatal ko welo yi rek la ko yàlla defal tàggatal ku jur yi ñi man di ci lekk di ci man di ci takk yu mel noonu yëpp di ko war kooku doomu aadama rek la ko yàlla terale moo tax ma yaa mu kër yow yow yaay aji teral ibaadu ay jaamam. icaal defal li ñeel ma alqaariqa xotteeku xotteeku baax. yaa xadir yow mi aji xam kàttan ji fi xarat di ci samay xemamteef yaa man yow yàlla mi xam lawoo ñeel na la taqdiiru mooy nattale ah mu ne yàlla danga ma defal ay xar baax su ma xemamee daal xemamteef loole yàlla na ci def xar baax ku ne xam ne ne tey mën ngaa toog tey jii nga xemam dara te doo ko mën a am wala yow ci sa bopp sax danga yow yore gëm-gëm ne lii dafa jomb ci man léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay gis nit ki amee oto bu rafet mbaa kër gu rafet moom ci boppam rek xelam da koy jombale naa lii moom xam naan mën ma ko am te pourtant mën na ko am de ndax yàlla ma may kee rek man na laa may kon nag bul naagu moo tax sëriñ bi kon lépp lum mu rek ni nga xamee ne ab waay bu taxaw fii xamam loo xam ne dafay dafay dafay wax ci xelam sax naan li jomb na ci man te fekk jombut ci moom bu ko wutee am ko ndax lu yàlla di may rek la sëñ bi nag lum soxla ci sens rek yàlla defal ko ci xar baax dafay ñëw teew ci kanamam ci sansa bu ko xamee rek yàlla defal ko ko loolu mooy xar baax ci nga xam ne lu mu soxla di ko xemem rek waxuma sax mu di ko laaj nit waaye na ko xemem rek yàlla yëg na ne sëriñ bi xemem na mu dal di koy defal. mun ne ko yaa man loo taqadir taqadir ci yàlla mooy ni mu def jant bi ak weer wi kenn ku nekk di am lu muy liggéey xeet yooyu moom la ñuy wax taqadir ci alquran lu mel ni bi mu ne fa qadaahunna sab'a samaawatin fi yawmayni wa awhaa fi kulli samaain amrahaa wa sayna wa sayna samaa ad-dunya bi masaabiha wa hifsan daanaka saalika taqdirul asiiz al-aliim parce liggéey bu xarañ la sunu xalaay la ci atqana kullu shay'in yàlla liggéeyam da ko xarañee ci bépp mbir lu mel ni asamaan yi suuf si ni mu ko bindee lu mel ni jant beeg weer yi loolu nag mooy taqdir nattaleeg yàlla la taqdirul asiisi allati laa yaxlibu ahadun al alimu bi xalqihi moom mi aji not bi nga xam ne kenn du ko not loolu nattaleem la moo ko nattalee noonu ci coobareem defee ko noonu kon gis nga sunu borom tabaaraka taala kenn du moom moo tax ma ne alxaariqa xotteeku xotteeku baax ya yaa xadir yow mi aji am kattan ji defal na ko fii xar sama xamamteef su ma xamamee rek day teew ci man ca sens boo ko nag yow mi gis kër gu rafet gu ëtt gu bi di ko jommale parce que sa xel ci boppam moom mu ngi yedd sa bopp naa lii moom mënoo ko am te pourtant ëtt na mën naa dox am ko wala nga am sax lu ko ëpp yaa man yàlla mi xam ne loxo ñeel na taqadiru ak nattale malak te nii moom loo nga ma maa sara nii loo xam ne daf may bég loo bilax tiraari ci lurut may waru wasuntani protésé nga ma wasuntani sàmm nga ma wasuntani ñoŋal nga ma ani la ay ni walis ka ñu rëbb ko di iblis wasiraar ak way yiis ña te mooy band yi yàlla jox na ma loo xam ne daf may bégloo heure bu ne damay belli di kontaan ah, te duma waru mukk ndax lépp loo am ba tax nga bég boo ko ñàkkee mën na naqar mën na la caa fekk loolu la ñuy tudd ak waru li mel ni tey boo ko jëlee ci wàllu ibaadaat muy jaamu yàlla jaamu yàlla mën nga ko def muy neex lool nga defee lépp yàlla nangu na ko bu yowmal xiyaame fekk boo ñëwee ci kanam yàlla yàlla na la nga defoon yëpp yàqu na parce que da ngaa wóoru yaa ngi doon bëgg ci àdduna defe ne sa jaamu yëpp baax na yàlla nangu na ko yowmal xiyaam nag ci naqar ci ngay dëkk moo tamit ne yàlla jox na ma loo xam ne daf may bégloo te du ma waru waaye aar na ba ba nga xam ne mucc naa ci iblis mucc ci way yiis ñi achar mooy bandi rek ñu yiis ñi nit ñu bon ñi ñi mucc ci iblis laa laa mucc ci ñoom yaquudu ni dana ma womat hubbuka sopp la fil xaadaati samay xaada yi wa fi xibaadaati ak samay jamu yàlla yi sa saadaati ànd ko sangu su baax sax mu ne jaamu yi may def ak samay xaada ànd ko nit ñu baax ñi di ko def nee na sopp gi ma la sopp waxtu ne moo may womat di ma xëcc di jëmee ci nga xam ne sëriñ bi même sax buy nelaw mi ngi jaamu yàlla loolu waxoon na ko ci miimiya naw mi ibaadatu rabbin laa sharika lahu qalbi yudabbiru ayantu rusuli kama buy lekk mi ngi jaamu yàlla buy naan mi ngi jaamu yàlla buy bind mi ngi jaamu yàlla lépp lu muy def rek mi ngi jaamu yàlla buy julli mi ngi jaamu yàlla léppam dafa dem ba léppam day jaamu yàlla. moo tax nag mu ne nag waxtu ne jaamu yàlla yi may def ak xaadi yi may def ak ànd koog sang su baax si sang si mooy xam nga sëñ moom dafa kéemaane sang sa man na ci jublu mooy taalib yi nga xam ne ñoo ko toppoon ñoom ñëpp ay sang lañ ñoom ñëpp ay sang lañ ñi ko toppoon gëm ko ci jamonoom kenn ku nekk mën naa yilif jamono mu ne nag def gi ma koy def ndoor bu dee ma def ndoor koog ñoom bu dee yàlla ma def ndoor koog ñoom ànd ceeg ñoom nee na moo may xëcc nag sop gi ma la sopp moo may xëcc di ma jëmee ci yow moo tax ne yëqu ni dana ma womat xubbaka sopp gi ma la sopp fii la xaadaati samay xaad yi wa fii xibaadaati ak samay jaamu yàlla maa sa yi may def ànd koog sang yi léegi nag moo may xëcc nag di ma jëmee ci yow nga xam ne buy lekk yàlla koy xëcc jëmee ko ci yow ngir sopp gi mu sopp yàlla buy julli yàlla nga koy xëcc jëmee ko ci boppam ngir sop gi mu sopp yàlla